ki Seexul Xadim jàpp ne moom waral na musiba ci boppam mooy tooñ na yàlla boroomam te tuubu tuubu ko mu ne ko luy maye doom luy tax a am doom mu ne ko coobarey sunu boroom yàlla sunu boroom lay neex mu ne ko luy andi am koom-koom cim réew luy tax am réew a naat Cheikhul Xadim ne maase ci li yàlla digle bu ñépp maase woon ci li yàlla sunu borom digle sëñ Touba nee na kon réew mi dana am koom-koom mu matale sëkk mu ne ko ndax ñépp mën nañu cee maase ci loolu Cheikhul Khadim ne ko bu sooboon bu ko sooboon moom suñ borom mu am maanaam bu sooboon yàlla ñépp maase ci jëf li mu def li mu digle ñu ne ko luy waral nit di jàmbat luy waral nit di jàmbat cheikhul xadim ne li ëpp ci nit ñi baaxoowuñu di sant loolooy tax ñuy waral nit di jàmbat kon jàmbat sëñ bi nee na li koy waral mooy ñëpp ci ñun nit ñi doomu aadama yi baaxoowuñ di sant waaye ku xool ku xëy te settantal ci sa bopp rek tuuti rek danga gis loo sant boo doxee génn sa kër dox tuuti rek da nga gis loo delloo sante sa boroom bu baax a baax mu ne ko luy tax a sant mu ne ko xool ki nga tane képp kuy xool ki nga tane sëñ Tuubaa nee na ci sant ngay dëkk kon dangay xool ci ki nga tane kon te xool ci ki la tane mu ne ko lu war ci ki lay liggéeyal mu ne ko jox ko àqam balaa ñaq waa fendi maanaam lan moo lay liggéeyal mu ne ko jox ko àqam balaa ñaq waa fendi mu ne ko luy gaawalub dox mu ne xanaa bañ a geesu sëñ Tuubaa soo bëggee sab dox gaaw bul geesu mu ne ko luy xañe bànneexu topp yàlla simila aleykum salaam mu ne ko luy xañe bànneexu topp yàlla mu ne ko bari bàkkaar bari bàkkaar mooy li koy waral noo ngi ziar bu baax a baax sëriñ mu ne ko liggéey yëpp atte ndax wóor na mu ne ko boo maandoo de wàññiwut dara mu ne ko luy taxa añ ëllëg sëñ xol xadim ne liggéeyal yàlla tey bañ a tàyyi képp kuy liggéeyal yàlla tey bañ a tàyyi bu ëllëgee danga nga añ mu ne ko kersa ak ngëm ndax mën nañoo tàggoo mu ne ko déedéet bokk am mbaa bokk tàggoo mu ne ko luy maye ndimbal mu ne ko xanaa muñ mu ne ko luy ndamal kuy rëbb mu ne ko jam mu ne ko lu gënut ci moom mu kii rëbb maanaam li gënut ci moom lan la Cheikhul Khadim ne ko sooy mooy bañee jam mu ne ko lu gën ci lu ñuy rëbbu mu ne ko ak njub mu ne ko lu koy maye luy maye ak njub mu ne ko coobaree yàlla mu ne ko lan mooy li nga xam ne kum dal du bég Cheikhul Khadim ne ko yaakaar ju tas ki nga xam ne lu li nga xam ne bu ko dalee du bég Sëñ Tuubaa nee na mooy yaakaar ba dox du yaakaar ju tas moo tax mu ne ko yaakaar ju tas ne ko wax lu koy dañal mu ne ko doy loo waxi ku mën a fen noonu la ko waxee waaye nu ngi jéggulu ci kàddu gi kon mooy waxi loo ko mën a nar mu ne ko luy maye kàttan am doole ci suñu boroom mu ne ko xanaa wéeru ci yàlla wéeru ci moom képp mooy maye kàttan soo wéeroo ci yàlla daal yow am nga kàttan kenn ëpp la doole mu ne ko luy lori biddanti maanaam nelaw ba naajee yow lan mooy musibaam lan mooy loraangeem mu ne ko ñàkkatane kenn kuy nelaw ba biddanti sëñ Tuubaa nee na musiba ma ca njëkk mooy yow doo tane kenn mu ne ko luy tax ngëm di mat mu ne ko di bëgg ngir yàlla di bañ ngir yàlla ngëm yàlla la koy tax mat dëgg sëñ Tuubaa nee na sooy bëgg na ngay bëgg te yàlla tax sooy bañit na ngay bañ te yàlla tax mu ne ko ndax yomb na ci ñëpp mu ne ko waaw waaw ko yàlla sédde day man nañu mu ne ko yan bunt la seytaane mën a jaare ba not nit mu ne ko sàggane tur yàlla akub reggaay saa boo sàggane tur yàlla te foo di lekk ba regg seytaane moom foofu lay jaar ci yow ba not la mu ne ko xanaa kon xiif baax na mu ne ko baax na lool waaye bu yamba mu ne ko ab dël lu ci war ab digg lu ci war mu ne ko matal ko sa kem kàttan mu ne ko luy taxa xam nit ñi mu ne ko yàgg a jëflanteeg ñoom boo yàgg a jëflanteeg nit ñi rek danga leen xam mu ne ko ki dëkkee jëflanteeg yow lu bon rek ana noo war a def Cheikhul Khadim ne ko dee ko defal yow rekk lu baax ngir yàlla mu ne ko ndax loolu ñëpp ko man ñëpp a ko man mu ne ko loolu de ñaar moom man nañu ko ab muñkat ak boroomu cër mu ne ko saxoo njëggalul yàlla ndax am na lu ko gën mu ne ko waawaaw mu ne ko loolu lu mu mu ne ko bàyyi mooy moo ko gën mu ne ko lan moo gën saraxe mu ne ko digle lu baax tere lu bon moo gën saraxe mu ne ko lan moo gën jihaat mu ne lay biira mbokki jullit yi muy dajale leen di leen waxtaane comme ni sëriñ Axmay bëgg a def mu ne ko néewug sàmmoonte tey jaamu yàlla ak néewug jaamu yàlla tey sàmmoonte lu ci gën mu ne ko néewug sàmmonte néewug jaamu yàlla tey sàmmonte ndax boo sàmmonte da nga mën a jaamu yàlla waaye boo sàmmantu doo mën a jaamu yàlla mu ne ko lu baax ku ko bëgg a def te mënoo lépp ana nooy def mu ne ko da ngay jàpp lenn te ginaaw bëgg nga def lu baax lépp te mënoo ko sëñ Tuubaa nee na ngay jàpp lenn ca lu baax yooyu nga bëgg a def te way ca nag mu ne ko ndax taxoo ku baax dana tax a baax mu ne ko waaw waaw ci kaw yàlla nar laa baaxal loo taxoo taxoo ku baax nee bu yàlla narul nga baax baax mu ko kan moo gën a sonn ci àdduna mu ne ko mooy ki bëgg a jot ci li yàlla dogalut kooku mooy ki gën a sonn ci àdduna mu ne ko yan teggin la junj ci nit ak ni war a nekkee kilifaam mu ne ko laa yaalamu taawiluhu illa allah kenn xamut mbirum alxuraan ku dul yàlla waaye diggante Muusa ak Xudar ak tàmbuli tàmbali sootul xujuraat ak sootul ahzab am na fa lu doy sëkk ci ab junju ci leer loolu muy laaj mu ne ko wallaahu alam yàlla rek moo xam mu ne ko lu waral sawara ay bànneex wër ko mu ne ko sawara ay bànneex képp moo ca jëm moo yoon wa ca jëm mu ne ko wéetaayu xol lu koy waral mu ne ko ñàkk a wéttalikoo yàlla mu ne ko wéttalikoo yàlla lu koy maye mu ne ko sikkar tudd yàlla lu bari mu ne ko teggin ñaata la mu ne ko ñett la mu ne ko teggin ci sa diggante sa boroom teggin sa digg sa moroom ak ay teggin sa digg sa bopp mu ne teggin sa diggante yàlla mooy lan mu ne ko mooy nga topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem muñ ay nattoom sant ay xéewalam mu ne ko teggit sa digganteeg nit ñi nag mooy lan mu ne ko lépp loo bëggul ku la ko nettali bu ko def ci sa wéet ak sa wéttaliku mu ne ko ay teggin sa digganteeg sa bopp mu ne ko lépp loo bëggul ku la ko def bul ko def kenn kon ndénkaan yooyu la Cheikhul Xadim doon dénk taalibe yi bëgg itam ñu gën koo jàpp gën koo jëfe gën koo bàyyi xel bu baax a baax a baax kon xam naa ñun dañ doon ubbi foofu rek ngir ubbil sëriñ Ahmadou mi nga xam ne mi ngi nii toog di sunu jëwrin ñu bokk ak moom fenn fu ñuy liggéeyee ni ma ko waxee léegi ba mu ñëwee ci àddina ñu jàngaloo ko ci école sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké yi mu jàng ba am xam-xam jàngale rek la fi nekke mu ngi jàng école Serigne Cheikh bu français bi ci sàq mi moo yor foofu cours araab yi moo yor ko ci annexe ba muy koo nga xam ne def na fa lu mat ñaar fukki at yàlla na gën a yàgg muy jëmm joo nga xam ne kenn du ko fi présenté kenn ku ko xamul itam gis nga ko ci internet bi muy def waxtaan yu am solo ak i soññee mu doon jëwriñ joo nga xam ne bi mu ñëwee ci commission culturelle ci wilaaya liggéey na ci liggéey bu rëy waaye loolu sax dama naan tuuti na liggéey na liggéey bu rëy ci commission culturelle ëttub sëñ Touba bi ba lu baree bari ci doxiinu fédération xam na ko sëriñ Ahmadou jaw mii xam na ko bu baax ci liggéey ci màggalu sëñ Touba gii nga xam ne bu sëñ Ahmad ñoom àggalee seenu liggéey bu mag desee ñett fan ñoom ñi ñooy jël nga xam ne gani sëñ Touba yi ñeenti téeméer organisateurs yi leen di organiser mu jóge ci section yi bis bu set moom mii moo yor. la jëm ci xeeti ñam ya xeeti palaat ya ñu togg moo yor liggéey boobu guddi ak bëccëg juróomi waañ ya xam na bis set lañ fay def ak la koy defal fekk na booba ña koy ñam yi liggéeyal formé nañ organisateur yi ba ñam bu mën a doon ci àddina xam nañ nañ koy toggee xam nañ nañ koy defee formation organisation ñoom ñi jàngal nañ ko commission ba àgg nañ ci kilo ceeb ngay tàmbaleek ñoom ñaata lay am ànd ak ci ndox ci jimbo ci diw ba une tonne ceeb membre wilaay koo ci fëgg tam dund commission bi dëgg waxuma ne ku koy dundantu xam na loole organisé nañ leen ba cafetière café xam nañ ñaata nit a koy naan xam nañ bool lu ndab ñaata cay sukk te du sëkk bu doon lu ñuy xayma ceeb ñaataa ci war dem te ñëpp ay rek kon loole xam-xam la boo xam ne duy caaxaan demu ci réunion yi képp yam si da wutaat beneen jour ngir commission di ca def loola kon noo ci barke Baye Serigne Jaw man Mansour mi sancoon fii te Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké fekk si woon ko fii te la waral ngan nga tey jii moo waral màggal gii seeni Cheikh moomu nag duma ci guddal waaye defoon na dénkaan bopp ñun ñu aju ci moom war nañoo dooleel sant yàlla bu baax te donga yi la ko defaloon ca baylaa laa sëñ Ibra Amar sëñ Aliou Amar mii di xalifa sëñ Ibra Joor moo ko nett li te bokkoon na ca donga ya doon muritoo baylaa laa sëñ Cheikh da woo ba ñëw Munelenda len da am lu mu bëgg a ak yeen waaye ku bokku ci yeen bu fekkee jotaay bi day japp ne mom lay ñoddi ta fekk nak man Cheikh Mbacke ñoddiuma kenn li am rek lay wax dal na yalla sun borom daf ma boole ak yeen ak cant go nga xam daf ma war war len dal ne war ngeena sant ndax yeen yalla musal na len ci ngeen dugut dara fu neewul waye waaye man Cheikh Ahmadou Mbacke mi yalla musal na ma ci man ñuy wut dara fi man te yoruma ko te ku bokkul ak yéen wutukaay muccut ci loolu daal di ne nag man Cheikh Ahmadou Mbacke fa ma yàlla sàkke la ma sàkkal ñi ma war a àndal daal ne na ku xamul saayir war a xam baatin daal ne saayir si mooy kenn ku nekk ci yéen gis na ku la gën a tagg kër gi di Daaru Xuduus gën la koo bëgg di ci wax te geneen kër gam nekk sëñ Cheikh nee na jaayuñu ko fa taylewuñu ko fa mayewuñu ko fa te taxun bàyyi kër gi dikk ci kër gi mu ne waaye kenn ku ne kii gis na ci kër gi comme xeeb jëf yinam ak wax yinam te du fi jóg ca limba la bokk kon ñu ko yàlla boole kon lefa kon ca la bokk daal ne nag kon war ngeen sant yàlla bu baax dénkaan ba gudd na waaye dañuy wàcce foofu kàddu gi xam naa delloo kàddu gi ba mu dellu si wala ñu jox sëriñ Ahmadou mu wéyal léegi waaye dañu koy delloo ba mu dellu si waat incha allah bisimilah